kuréel gi lëkkale FRAPP dégage France FRAPP dégage nitu dagg valeur LCIS ñoo lànk ak yeneen yi ni mel ñoo lëkkale woon seen doole fas yéene woon amal niki ëllëg ñaari fan ci weeru juin ab doxu ñaxtu doore ko cërële bu fan jëm ci ministère de la santé li lee nag ngir ñawlu jafe-jafe yi nga xamante ni moo am ci wàll wérgu yaram ci jamono ji bi ci mujj di fukki bébé ak benn yu daal di ñàkk seen bakkan ci lakk fële ca hôpital maam Abdoul Aziz fële ca Tiwaawan. First ñun African ñun euh, luttons contre l'indiscipline au Sénégal LCIS ñun euh, Sénégal notre priorité ak ñun FRAPP pour waxtaan ak yéen. ndaxte xam ngeen ne fan yële passé waxoon nañ leen que ñun ñëpp dañuy ànd def benn manifestation euh, alxames mooy suba ñaari fan ci weeru juin manifestation bi nag nii lay demee dañuy jóge poste fan dox ba buntu ministère de la santé ci benn tali bi la euh, à peine 400 mètres 500 mètres même pas bu ñu egsee ministère de la santé ñu def euh, taxawaayu ñaxtu rassemblement wax lu ñuy wax mu am tamit benn bataaxal benn lettre bu ñu jébbal ki nga xam ne moom mooy jëwriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu santé ak action sociale ci ministère de la santé et de l'action sociale lettre bi nag ñu ngi ko déposé woon euh, ajuma ajuma bële passé li taxoon ñu déposer lettre bi moo di ne dañoo jàpp ne wér-gu-yaram bi fu mu toll ci Sénégal mënatuñu toog ne tekk na meng ñi xam ñi bokk ci suñuy mouvement xam nañ ne ay atang yi ñu ngi alerte di tirer sur la sonnette d'alarme di alerter ay atang yi ñuy nodd naan moytu leen moytu leen moytu leen ay at ngi ñuy nodd naan système de santé bi nañ ko xoolaat nañ ko xoolaat ay at ngi ñu ngi wax ak askanu Sénégal di wax ak ñi nga xam ne ñoom la askanu Sénégal dénk momentanément réew mi ci ne ay waleen ñu jóg ay ñu jóg ndax bu ñu jógulee dinañ jeex te suñu àpp jotagul ay waleen ñu jóg ndax bu ñu jógul ay bakkan dina rot te suñu àpp jotagul toll nañ nag foo xam ne ñun ñëpp gis nañ ne ñu ngi jeex suñuy doom yaa ngi jeex suñuy jabar suñuy euh, suñuy jigéen suñuy yaay yaa ngi jeex suñuy waajur yaa ngi jeex te seen àpp jotagul ñun sax ñu ngi jeex te suñu àpp jotagul ñun ñii nga xam ne mënuñu wasinee feneen fu dul Sénégal ñun ñii nga xam ne mënuñu def tourisme médical Sénégal rek la am ñun ñi nga xam ne amuñu passeport pour voyager amuñu sax xaalis ñun ñii nga xam ne hôpital publique la ñu am centre de santé publique la ñu am poste de santé la ñu am buñ ci jógulee du baax. ginnaaw ba ñu jébbalee ab bataaxal préfet bu ndakaaru ni ki ajuma bu weesu ni ki démb la ki nga xamante ni moom moo di préfé bi ah, daal di leen jébbal ab tontu lim xamle rek ci bataaxal bi moo di bile marche duñu ko autorisé ndaxte ñi di waa FRAPP ak yooyu les kuréel defuñu ci yoon bi ñu war a jaal bi ñu déposé lettre bi ajuma démb monsieur le préfet bu ndakaaru nañu j'accuse réception de votre lettre en retour il ressort de son examen que l'itinéraire précis de la marche n'est pas mentionné par conséquent conformément aux dispositions du code pénal je constate l'irrecevabilité de la déclaration et vous demande de surseoir à la dite manifestation ci gàttal préfet bu Ndakaaru nee na ñun ñi nga xam ne ay cinq ans ay dix ans ay quinze ans ay vingt ans ñu ngi déposer lettre pour manifester ñun déposer nañ lettre pour manifester ci tomb bii mooy suñu wér-gu-yaram ñun ñëpp nga xam ne boo moytul moo ëpp solo ci xeex ñu yàgg xeex yépp ñun dañoo fàtte bind itinéraire bi lii ñun lettre bi ñu déposé de waaye ñii di ñu seetaan ñii di ñu déglu ndax seen xel mën na nangu loolu. waa dégg naa am na ñoo xam ne mënuñu defar liste waaw gars yi ñu ngi leen di jokkaas waaye ndax xalaat ngeen ni ñun mën nañ déposer lettre pour manifester te binduñu ci itinéraire ba mu naan c'est irrecevable manifestation amul ñëw liiral leen nag ñun lettre bi ñu déposé après dinañ leen ko yónnee euh, ñaari extrait yëpp bu préfet ak ñun dinañ leen ko yónnee par WhatsApp pour ñi nga xam ne am nañ seen WhatsApp ñu ne vous informe de la marché pacifique suivie d'un rassemblement devant le ministère de la santé qu'il compte organiser le jeudi 2 juin 2022 du relais route de Wakam entre parenthèses en face poste de Fann au ministère de la santé où une lettre sera déposée de 15h à 19h lettre bi la ñu déposé préfet bu Ndakaaru yónnee ñu démb bataaxal nañu votre lettre est irrecevable parce qu'elle ne contient pas mention de l'itinéraire et par conséquent marché bi bu mu am suba la de 15 heures à 19 heures nee na ñun de binduñu itinéraire euh, man pour la première fois depuis préfet bu bees bi biñ ko nomewee sama téléphone woo ko ma ne ko monsieur le préfet euh, nanana mu ne non y mention de l'itinéraire ma liiral ko lii mu ne ma c'est votre interprétation voilà fu ñu toll tey Sénégal moo gën yëfu yëfu caaxaan yi ngeen di gis ci élection yeeg ci yeneen ak yeneen. ñoom yile kuréel fas yee woon a teggi waxi préfet daal di amal seen mars waaye dañ ko mujj dàq ba jëmmi jamono li ñu li ñu xamle moo di ñëwuk ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Ibrahim Niass demoon fële ca Soudan dox tànk jàmm ba daal di ci am ndam lu rëy lañu ñu fas yéenee teeru niki ëllëg li le tax ñu daal di dàq yile manifestation ba jëmmi jamono. moom Mor jamono jii moom lépp luy xeetu manifestation moom du ko liir te maintenant il est habitué mooy des faits mooy du nangu def enquête lan mooy loolu ñun ñu jël suñu temps respecter li constitution wax bind génnee suñu xaalis. jébbal ko simple bout de papier moom Mor Talla amul lenn lu muy def lu dul ah maanaam mooy du ñu faye bakkan wala du ñu tontoo bakkan ñun nag dañuy daal di jël suñu responsabilité dafa fekk rek ñun Sénégal ak sénégalais dañu leen daal di respecté bu baax a baax moo taxit à chaque fois bu ñuy def manifestation dañuy daal di bind suñu bataaxal jébbal ko mais xam naa ne nag ak condition yii nii bu ci continuer dañuy daal di déposer rek moom léegi amul xawma ma recevoir ñàkk recevoir ñun sax demoon nañ ba léegi sax ay dem jëli arrêté wax dañ koy tegee nale dañuy déposé rek ba tax na insha allah moom Mor Talla Tine vu que nee na ni amul itinéraire amul benn problème moom na jàpp foofu mais na xam ne ni ñun ak moom musuñoo daw yotaa te du tey jii la ñuy reculer waat dafa am chance rek parce que tey mooy kii mooy suñu pap suñu kilifa moom moo am ndam moo taxit euh, ci la amee chance nag ba tax na incha allah lettre bi ñu liir fii nii même lettre la ñuy déposé waat encore moom Mor bu mu daw yotaate nan newaat encore bindoo leen itinéraire boobaa incha allah fan yii di ñëw dañu leen daal di wax heure ak jour bi nga xamante ne dinañu def manifestation bi. suñu kilifa suñu xalif. Serigne Mahi waroon ñëw tey ñibbisi senegal tey ñu yóbbu ko suba à la même heure que la manifestation ñun bi ñu woote ñu ne ah Serigne Mahi Niass mënul am ndam bi mu am ca Soudan Sénégal yëpp Afrique yëpp àddina si sëpp di ko bàkkoo di ko rafetlu di ko jaajëfal te ñun doomu Sénégal d'accord euh, duñ ko ndamoo duñ ko jëmmal duñ ko fësal ñu ne kon nañu randal suñu manifestation bi président Macky Sall ñu bay commencé ci wàllu wér yaram bi ñu ngi ñëw du nee nga gisoo itinéraire di nga gis itinéraire may ñu tuuti rekk suba ñu sargal ñu gërëm ñu félicité ñu ñaax euh, euh, euh, suñu papa suñu kilifa suñu xalif sëriñ Mahi ñas ak ndam bu rëy du rek ndamu Tidiane du rek ndamu Niassène du rek ndamu jullit du rek ndamu Sénégal ndamu Afrique ak àddina sëpp la. yile kuréel di xamle ni duñu bàyyi benn yoon seeni manifestation. te lim ci jaral préfet bu dakaar dina leen ko jaral ndaxte wérgu yaram amul njëkk faw ñu jóg wax ci dox ko waaye itam da ndax nguur gi jël ci ay pexe ak ay matukaay yu mat sëkk